ndax li muy tekki mooy ki sos loo xam ne gisuwu ko fenn ndax nee nañu saxaaba yi bi baat bi wàccee faatiri samawaati ñu toogub diir rek benn bis benn waay ñëw fa sol tengaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruuj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka haada foo jële lii mu ne leen ana alladi fatartuhu bi yadi ñuy daal di yëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwu ma ko fenn mu bokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla ñu yàlla may ba ñu dégg sóoratu faatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg dugg ci sóoratu yaasin incha allah bismillahi rahmaani rahim loolu jumla la yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmaani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmaani rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmaan rahim muy ci tur yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmaani rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ ca bismillahi rahmaani rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim fa huwa abtar bismillahi rahmaani rahim alhamdu cant yëpp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yëpp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na teg ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daa di yàqu ñu indil ko tolier lu tolier wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamoon li xew day wax rek alhamdulillah doon te ko dal neexut su accident amee ba tey benn waay bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal di alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàlla ah na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarkàlla waa ji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waa ji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii miil tabarkàlla bu mbaxanaam a fees ah moom it day wax alhamdulillah doonte ñoom ni waa néew bi tubarkàlla sonn nañ ci ngir bañun mu génn àdduna yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaa'ibu qawmin inda qawmin fawaa'idu loolu la almutanabbi wax shaa'ir boobu kon nag alhamdulilah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarkàlla la ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al ustaas Euh, sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ saaliwu sow bu ko dee firi muy alhamdulilah da koy piri piri mu am solo ndax nee na bi muy wax ne yu bi nee na mooy ñaan gi gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski wi dugg nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarkàlla su ma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël barkàlla ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulilah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy dégg ne kon dafa bëgg ndollan ndaxte la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen. mu tax lu la yàlla defal lu ne waxal alhamdulilah. yàlla moomu nag faatiri samawaati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee créé amul benn misaal bu jiitu woon albaydawi day firi faatiri samawaati wal ard mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala misaal moo leen sos moo leen génne ci lu mu gis ko fu mu ko mën a ma ko jëlee maanaam ne fii laa roye mbir mi ba demee ci alqaamuus almuhit maddatu booba ca la nekk mu ne wala madd maddatu boobu muy baatu fatara soo ko ci seetee daa ko ci gis mu ne yàlla kon faatiri samawaati mooy ki asamaan wala ardi ak suuf nit ñi li fi ñuy defar waaye ñaare dañuy fekk ku def ñu jéem a def la nga def walla nga def ne leen génne leen li ma def ñu far jël ko def ci seen tur génne ko ne ñoo ko def moo tax ñuy toppandoo yàlla ci defaral suñu néeg yi asamaan di ko defaral suuf ndax mën na ci biir yàlla nag asamaan gisu gisu fi woon lu jiitu asamaan suufit it gisu fi woon lu jiitu suuf te moo leen def ñoom ñaar kan mooy yàlla yàlla jaacilil malaikati rusula mooy ki tànn malaaka yi def leen ñu di ay ndaw foo leen fekk ñu ngi liggéey wasaa'id bayna allahi wa anbiyaihi li tabliqihim awamir allah ibnul jawzi mu ne yursiluhum ila al wa ila ma shaa min al umur noonu la ko ibnul jawzi ca jukkib juróom noonu la ko fa waxe atum ñeenti ak juróom-ñaar fukk ñett mu ne kon jaailil malaikati moom mooy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñu nekk ay ndaw ñoom malaaka yooyu uli ajniha di boroomi laaf malaaka yi yëpp dañoo am ay laaf masana am na malaaka yoo xam ne ñaari laaf lañ am wa thulaatha ak malaaka yoo xam ne ñetti laaf lañ am wa rubaa ak malaaka yoo xam ne ñeenti laaf lañu am loolu ci malaaka yi nun lañu mel su ko defee yaarujuna biha ila samaa yi di ko rañaane di jëm asamaan malaaka yi ñoom duñu leen gis ñun waaye ñoom da dañ ñuy gis moo tax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni sëfoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moroomum sëfooram dajeeg moom taal làmp ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yégee mbir moomu ba tax ngay walbatiku walla nga ñëw ci feu bi benn bu bii tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk-tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu lañuy dox kii leen gën ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa ndax fi mu nekk jant bi ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmer mboolem lu ñuy yendoo jant bi ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mu ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak kayit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak kayit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu ne daañu fa dugg lu néeg lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañu ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société walla yooyu yow la gaa yi laaj pièce waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj pièce tabarkàlla te nag ñi ngi ànd yow kenn du leen laaj pièce ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waa ji taxaw ji la laaj pièce moom ñaari malaaka am ñoom it ñu ngi taxaw moom yàlla jaailil malaikati mooy ki def malaaka yi ñu di ay ndaw uli ajniha di boroomi laaf masna ñaar-ñaar wa sulaasa ñett-ñett wa rubaa wala ñeent-ñeent yaziidu fil xalqi yàlla mooy dolli ci bënd ga nag bind ga maa yashaaw lu ko neex daa ngi ci aaya ji njëkk ci suuratu Faatir yi yaziidu fil xalqi maa yashaa kayfa yashaa min daxaamati al ajsaam wa tafaawuti al ashkaal wa tacaddudi al ajniha bi mu waxee ne ñaari laaf ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci dolli nu ko neex mooy malaaka mi mu bëgg mu rëy mu rëyal ko malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm laaf it bu ko neexee mu yokk ko ne nañu yonent bi sallallahu alayhi gis na jibril guddi ga rañaan ga te booba mu ngi firi juróom benn téeméeri laafam diggante laaf mu ne mu ngi toll diggante penk ak sow hadis bi axrajahu muslim an ibnu saud asabaxsiri mu ne raa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jibril fi suratihi lahu sittmiati janaax juróom benn téeméeri laaf yasidu fil xalqi maa yashaa kon moo bu doon ci nit ñi bët yi rafetaay ci bakkan neex wax neex baat doomu aadama da ngay seen mu ne jëmm nii tabarkàlla am na yàlla def ci moom mottulee ko bindam mu saf xorom lool walla mu soof lool walla mu ñàkk fulla mbaa mu am fulla ak yu demee ni ki yooyu yàllaa koy yokk ci bind gi ndax noonu la ko soobe yasidu fil xalqi ma yasha inna allaha yàlla ala kulli shay'in qadir lépp la man yàlla lépp la am kàttan inna allaha yàlla ala kulli shay'in qadir lépp la am kàttanu def ko lépp lu mu bëgg a def am na kàttanu def ko am na pouvoir def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul lenn lu mën a gàllankoor jëfi yàlla su ko nammee amul kenn ku mën a bañ lu la yàlla sant ci sant lu mooñaale ci yow ñaari melo yooyu di ala kulli shay'in qadir melo yu màgg la ci suñu borom tabaraka wa taala ci xéewale melo yu benn mooy bind gi mu bind asamaan ak suuf maanaam sos leen te gisewu ko fenn ak itam amul lenn loo xam ne mën naa wëlbati li mu namm yàlla tabaraka wa taala loolu mooy màggaayu bi nga xam ne màgg na ko mooy rëyaayu ni nga xam ne rëy na ko subhanahu wa yàlla ma ne maa yaftaxi llaahu linnaasi la yàlla ubbil nit ña min rahmatin ci ay xéewal fala mumsika lahaa kenn mënu koo téye ba du àgg ci ñoom lépp yàlla may jaamam yi may leen ko ci xéewal jële ko ca bàngase yërmandeem ya jële ko ci jox leen lu mel ni xaalis wér gi yaram kolute xam-xam xikma wërsëg ak yabal yonent ngir mu indi ak njub ak mboolem xeeti xéewal yi amu ci lenn loo xam ne nit mën na ko gàllankoor ba du agsi ca kam ko jëmale fala mumsika laha wa maa yumsiku lu mu téye nag bañ koo joxe lu mu ne du àgg ca loolee fala mursila lahu min baadi yi kenn mënuta yebal loola ginnaaw bi yàlla ne moom du ko yebal li yàlla ne doo jot amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak muusaa yu mën a jóg fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow loolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaraka wa taala mayu ko kenn kenn amul kàttanu def ko maa yaftahi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wa maa yumsiku fala mursila lahu min baadi tawxiid bu am solo la li yàlla nar nga am ko kenn mun la koo tee am li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko loolu la yonent bi daan wax bu salmalaan allahuma laa maani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gi euh, mu nekk ci hadis boo xam ne ji muslim nettali na ko ca téeram bu wér ba allahumma la maania lima aatayt koo jox kenn mënu koo xañ wala mu'tiya lima manaata koo xañ kenn mënu koo jox wala yanfau zal jaddi minkal jidd ku am cër lum cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru mënta jëriñoo ca cër ba loolu kon moom mooy firi bi yonente waan firi aaya jooju suratu saba aayam ñaareel wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki al xakimu mooy ku xereñ ki kon suñu borom tabaraka taala nii la ubbi suratu sa nu faatiri ubbi noo xam ne wi bàkku na ci alhamdulillah mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah tabarkàlla mu tàmbalee ko ko ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom ci boppam moo ko bind te it bi ko bindee indee ko nii mu ko indee moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu du lum xoole fenn defe ko ni nga xam ne noonu la koo ko defe loolu soo ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi di ñaan yàlla mu defal ñu taw tawfiix ngeen teg seen baaraam ci suratu Faatiri ayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Ablaye Jaxate ci Sud seen rajo moo leen di seen tafsiru alquranul karim ñëwoon nañu ci suratu Faatiri ba amoon ci ñaari aaya taxawoon ci maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsiku fala mursila lahu min baadi wa huwa al azizu al xakim war a doora tey ci aayam ñett yaa ayyuha annaasu uskuru nicmat allahi alaykum hal min xaaliqin gayrullah di ñaan bu baax aka rafetlu bu baax ñi nga xam ne tabarkàlla ñu ngàmb seen téere di ànd ak Sud FM seen rajo ci tafsiru alxuraanul karim bi fii am tabarkàlla yal na yàlla nangu suñu koor nangu leen seen koor suñu borom bi mu ubbee saar bii ci màggal ni mu toll wane na moo bind asamaan ak suuf wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf ñuy ñaari laaf ñuy ñetti laaf ñuy ñeent am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu dar ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo waaye bépp xéewal bu yàlla fànqal nit kenn mënu koo ubbilaat yonent bi alayhi salaatu salaam bu masaana julli ba sëlmal loolu la daan wax allahumma laa maania lima aatayt wala muctiya lima manaat wala yanfau zal jaddi minkal jidd axrajahu muslim fi sahihi ñu door a tey ci fàttaliku yàlla yi fàttali mboolem doomu aadama yi ñi ko gëm ak ñi ko gëmul ñi di góor ak ñi dul góor ñuy ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag yàlla nee na yaa ayyuhan naasu ee yéen nit ñi kon ku nite ku ne dugg nga ci biir wax jooju ku nitewut nag waxut ak yow ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut yow yaa ayoon naasu ee yéen nit ñi uskuru fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla aleykum jumwaati ci kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yim la defal ba dee boroom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mii boroom kër boo dee surga fàttalikul xéwal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekki ni mu ko nekk boo dee njaatige fàttalikul xéwal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige te ki nga nekk njaatigeem ëpploo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne ñi bu deew jàng am na ñu waraw la bu dee doole am nañu la ko ëppale ak yu demee ni ko yooyu kon xéewalu yàlla mooy teg ku ne fa mu teg xéewalu yàlla mooy tax ñuy nokki nokki yi ñuy nokki xéewalu yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf xéewalu yàlla moo tax barkalla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla yooyu yëpp ci xéewalu yàlla la bokk xéewalu yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw indiwaale ku bakkanam mu ne kon nag uskuru nicmatallahi aleykum hal min xaaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dul yàlla déedéet amuñu kenn ku bind ku dul yàlla yàlla ci boppam tabaraka wa moom moo ñu bind amuñu benn xaalix kenn ku dul suñu borom tabaraka wa beneen tawxiid a ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya tawxiid alxaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah alxaaliqiya benn xeet la ci xeet ci yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala eh, da te mooy alxalq bind gi nga xam ne moo ko bind lëfi nag laa xaaliqa taala moo tax len lu moom doo xaaliq yàlla yarsaxukum moo leen di wërsëgal min assamaa'i wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf suñu borom na ma ko waxoon ci bind ba weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej gi wërsëg tabarkàlla suy ci suuf si wërsëg suy ci asamaan si wërsëg suy ci biir suuf sax wërsëg fenn fu ne nit a nga fa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg jon waaye gi nii joo xam ne wërsëgam yàllaa nga ko def ci ab big muy bind rek di am wërsëg nga xam ne moom signé lay liggéeyee jon waaye gi nii boo xam ne wërsëgam a ngi ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la muy am jon waaye boo xam ne wërsëgam moom tabarkàlla ci yeneen xeet lay nekk moo tax yarsuqku min as-samaa'i wal ard moo tax lu mu tere bàyyi koo gën lu mu digle rek def koo gën yàlla laa ilaha illa huwa ku dul moom nag doo yàlla laa ilaha illa huwa laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu al ahad ku dul moom doo yàlla moom rek mooy allah moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu bi nga xamee lii nag fa annaa tu'fakuuna nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii ñii jaamu xërëm di ko jaamu ñii jaamu leneen di ko jaamu jubluwaay bi kon mooy fàttali xéewal yàlla yi tëral ci ay xujja yu leer tegal ko képp koo xam ne kii sa nekk na sax ci bokkaale ibnu kasir benn firikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi biwujubi ifraadi lcibadati lah fakama annahu almustaqilu bilxalqi wa risq fakadalika yajibu an yufrada bilcibada wala yushraku bihi gayruhu min alasnaami wal awthaan muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent nee na wax ji yàlla wax fii dafay jubbanti nit ñi di wan ay tegtal yi wane ne yàlla moom la war a wéetal ñépp a ko war a wéetal ndaxte ginnaaw moom dong moo bind te mooy sëgale te laa ilaaha illaa huwa nee na kon keneen ku ñu defal ak ibaada mu dig jaamu defal nañ ko lum yoyoowut waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lam lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bu bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom bu fekkee moom mooy wërsëgale la ba noppi nag ñu war koo jàmm boo ko fi bàyyee nag bi jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag euh, wax ay bëgg-bëggam ci yow wax ay yëmban ci yow ak itam neeram man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow sañ naa dagg samay xéwal ci yow ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxaweel ma yi ma bëgg nga taxawe ko nga lang ko taxaw te ibaada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko du julli gi rek du woor gi rek du asaka rek du aj màkka rek yooyu ay qawaayit la ci waaye dëgg-dëggi ibaada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm suuf yaatu ñépp nekk ci jàmm ak xéwal loolu la yàlla sant doomu aadama yépp bu ñu ko defoonagul nag saa boo waxee ñoom rek nga leen kàllaa lammaa yaqdi maa amara defagu leen li ma leen sant suratul faatiri aaya ñeent wala aaya ñett wa in yukazzibuuka bu ñu la weddee yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo waxee nit ñi ne leen yàllaa ma yónni yàlla nee na nangam baaxut yàlla nee na dee leen def nangam ñu weddi la ba mu la naqari faqad kuzzibat yàgg na ñu weddi rusulun ay yonent min qabliku lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu baree baree bari ay téeméeri téeméer wala ay junni junni laa yónni ci ay yonent yonent bu mu mas yónni rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mas a yónni la lay weddi mooy ëpp la lay gëm tax wa in yukazzibuuka faqad kuzzibat rusulun min qablik waaw bu ñu la weddee wejj nañ ay yonent yu la jiitu kon nag falaka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ilallaahi ca yàlla la jëm wa ilallaahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turja'u la ñuy delloo al umuuru mbir yëpp wa ilallahi turja'u umuur mbir yëpp càll lañ koy delloo ñi la doon weddee yow leen di wax ak ñëpp la gëm yéen ñëpp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala muy xisaab leen kon nag yaa ayyuhan naasu ma waxaat leen yaa ayyuhan naasu yéen nit ñi nite inna waadallahi li wóor mooy li dige xaqun moom lu dëgg la li yàlla dige ne yéen ñëpp da ngeen faatu dëgg la de yéen ñëpp da ngeen dekki yéen ñëpp daañu leen fay loolu xaqun thaabitun laa maxaalata laa xulfa fii amul sikki sàkk amul werante ci ne li yàlla dige dëgg la koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci biir suuf coefficient muy waaxu dina am bis ñu rob ko coefficient muy waaxu suuf dina ko mujje minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ñëppay dugg ci biir suuf ñëppay génnaat loolu day xàqun dëgg la dëgg la goo xam ne amul warante dëgg la goo xam ne amul sikki sàkk ndax ki ko wax huwal xaq moom mooy dëgg fala taqurannakum bu mu leen wor ba fàtteloo leen seen bis boobu alxayaatu dunya dund gu gàtt gi fala taqurannakum bu mu leen wor ba fàtteloo leen seen bis boobu alxayaatu dunya dund gu gàtt gi dund gu gàtt gi àdduna nga xam ne doo fi am téeméeri at ak fanweer mukk doo fi am téeméeri at ak fanweer boo wàññee ñu ko am day ci baaraam nga koy wàññi <coughs> bu la adduna wooree nag nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj ànd ci rob fàtte sab rob seytaane ak adduna la ba dox sa digganteeg ngay fàttaliku sa bis boobee loola day wor la fala taxurannakum alxayaatu dunya dund adduna gii nag daa mën a soo ci nekkee te tabarkalla dara mettiwu la nga nekk ci jaaxle woo da ngay daal defe ne yow doo fi jóg rekk nag ngay daal di féetewu looy def moo tax sooy solu moo tax sooy ndox moo tax lenn lu nekk adduna rek a tax sooy def sax adduna tax falaa taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum bu mu leen wor alxaróoru warkat bi di iblis billaahi ci yàlla bu leen iblis war ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ne nit gis nga la yàlla lay jige muy àllaaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak nii ñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla du dugal doomu aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam wax a wax wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nara a xañ teraangay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nara a xañ teraangay àllaaxira moo tax seytaane day ñëw di la wax yow ya mel nii ya bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarkàlla miim aadam dellu miim deel du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di wor te itam la wax nag ne ko ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu metti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gonte gont ca seetaan na la ah, amul solo tubaarkàlla ñu xale yi wax léegi rek loo wax ñu ne garaawul te fekk garaaw na tubaarkàlla mu ne inna seytaana seytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna seytaana lakum aduw seytaane seenum noon la fattaqisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaqisuuhu aduwa jàppee leen ko noon kenn ci aarifoona billahi yi dafa daa ne jàng aaya ji mu ne yaa ajaban liman asal muxsin bacda macrifatihi bi ixsaanihi wa ataa allaina bacda macrifatihi bi adaawatihi kenn ci aarifoona billahi mu ne mu naa koy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gi mu def mu di allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoo ak moom kon nag inna cheytaana cheytaane lakum allati tatawaqadu ala ahliha tafsir tabari jukkib ñaar fukk ñaar xatum juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mu ne moom tabari seytaane day woo ay parandoom ña koy jàppale ña koy farle ngir ñoom ñëpp ñu bokk ci ñooy sax ca sawara wa nga xam ne tabarkàlla ñoom ñooy nekk matt ma moo tax seytaane ñu mu fal ñu nekk ci xis boobu ak parteem ñooñu fi nekk li ñu koy defal man nga ne boo doon misaal moo ëpp moom li muy def ndax moom màggat na léegi tabarkalla mu nga tëdd ca gi gën tëdd jaaxaan ca euh, tabarkalla euh, loola mu tëdd muy gàngu naayam nga wala ba muy piliyaanam ba daal di yebal gaa yi nag ñu ñuy tasaare ñii ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi balay xew-xew ñoo koy defal loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi ñii bu yor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yor ndànk dem ci xale buy sëy waxal ko lu tas sëyam ñii bay liggéey ñoo lay fekk fa ngay liggéeyee jéem a dox sa diggante sa patron wala nga li may sub tëral mooy nii la war a jàppe bu nii ñii seytaane moo leen di jaxase tubarkàlla wala boog partenaire seetaan ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp li yakunu min asaabi saawir na ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demee ni ko yooyu tabarkàlla alladina kafaru ñu weddi yàlla suratu Faatir aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lahum am nañu azabun shadid mbugal mu métti ñoom ak seen kilifa googu di iblis walladina amanu ñi gëm nag wa amilu salihati tey def lu baax lahum am nañu maxfiratun njëggal wa ajrun kabir ak pay gu rëy yàlla nañu ci yàlla boole ñi gëm yàlla tey def lu baax am nañu maxfira am nañ ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm gu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom imaan ak amal saalix du ñu tàqali ko ak amal saalix du ñu قرن الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات gëm nañu gëm nga ñu wax ñu fas ko ci seen xol muy tasdiq wax ko ci seen lammiñ muy xawlu waaye seen cër di ko jëfe muy amal ñooñu lahum maxfira wa ajrun kabir yàlla ñu ko yàlla defal afaman zuyina lahu moo ndax ki nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam ju ñaaw fa raahu mu gis xasanan du rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam fa raahu moom mu gis jëfam ju ne xasanan jëf ju la loolu istifham la jawaab bi dañ ko xasaf dañ koo dindi maanaam soo ko doon taqdir da nga naan afaman zuyyina lahu wala zuyyina lahu sheytaanu amalahu sayyi xata raahu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbaahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasaf wax ji daal di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ki nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraawu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defeelu rafetul bakkanam mi yedd ko conscience am mi yedd ko mu yëg ne mu def baaxul ndax ñaar ñii daa yem déedéet ñaar ñi du yem mukk ndax kee bakkanam mooy al amaara bi suu kii nag bakkanam mooy an la lawaamu moom bu defee loo xam ne rafetul bakkan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaramu neen yii ci mbedd mi rafetul diw sa col gu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamal la boog loolu nas la waama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg leen nga tafee benn bu jigéen goo xam ne gii nafs la waama la yor waaye nag du ci góorgóorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fa saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul léeg-léeg muy dox ci mbedd mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf ndeysaan nga gis ne kii bakk na mi naan quoi xam nga ne li ngay dox ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu léeg-léeg su solee col googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi barkalla nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigg li daal di koy yeew yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci booru oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye noonu ndeysaan nga gis ne bakk na mi naan ni ngay doxee ci mbedd mi baaxul parce que ñii ñu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafsa la waama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ci dimbale ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafsul mutmainna irjii ila rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wa dxuli jannati kooku ko dimbal rek mu dem képp koy dox ci mbedd mi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu euh, la jotut nday ñoddee ka defaraat kooku ku ko defarle jàppale ko lu mu tuuti tuuti rek mu baax waaye nag duñ leen jàppale ndeysaan tubaarkàlla kon nag afaman zuyina mu ndax ki nga xam ne dañoo rafetal lahu ci moom suu amalihi jëfam ju ñaaw faahu mu gis jëf ja xasanan rafet ndax dana ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla nee na ñaar ñii duñu yem fa inna allaha yàlla yudillu mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex fa inna allaha yàlla yudillu mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex ay ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi bu ñëwee alqadariya ak aljabriya bi ñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla ñeneen ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yudillu mooy sànq ma yashaawu neex wa yahdi mooy jubal ma yashaawu ku ko neex waaw noonu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii balut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur ah kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waay defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarkàlla moo maye doolay def lu baax maye doolay def safaan ni mu mayee doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la mayee doole nga jël xaalis jënd ci tàngal ci moom na ginnaaw moo mayee doole yi jënd almet taal kër gi mayee doole yi jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bi nga amee sa doom bu ñu jógee ca école ba ñëw ne la fourniture yi la ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sañ nga sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam ka ca des jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj tele bi ñoom ñëpp yaa leen may doole li ñu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu ma yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñëw téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla du defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllaay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari mbir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbbu sa bi xasaraatin alayhim alayhim ñuy rëccu ci moom fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi ci ñoom xasaraatin ay rëccu jëruñoo rëccu bàyyi gi ñu imaan mu ne mun a jëruñoo ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lépp lu ñuy def yàlla alimun ko xam bima ci lépp loo xam ne yasnaun ñu koy def suratu fatiri aaya juróom-ñeent wallahu te yàlla alladi mooy ki nga xam yebal ngelaw yi mu ko yebalee fa tusiiru ngelaw li di yëngal aw niir fa xarrakati sahaaba wa ahaajathu yàllaay yebal ngelaw ci kàttanam moom subhanahu wa taala bi ngelaw li ñëwee yëngal aw niir su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu ñu ommat ko ilaa baladin jëme ko ci ab dëkk mayitin bu bekkoor ilaa baladin mayitin jëme ko ci dëkk bu bekkoor ba mu demee ca dëkk bekkoor boobee fa bi bihi ñu dekkal ca al arba suuf sa suufu dëkk ba waa mi wàcc taw ba bari baada mawtihaa ginnaaw ba dëkk ba bekkooree kazalika nu yàlla dekkale suuf si kazalika nu yàlla dekkale dëkk ba kazalika nu yàlla dekkale gàncax gi naka noonu an nushuuru mooy dekki gi ci biir xabri kon yàlla misaal na fii naka lay dekkale ñi dee ab dëkk ngi nii amuñu nawet yàlla yebal ngelaw ngelaw dem yëngal niir niir jóg suñu boroom ommat ko ngelaw ak niir ànd ba dem ilaa balad mayit ci dëkk bu bekkoor ko defee météo daal di gis ngelaw li daal di gis niir bi mu daal di xam ne daw bi muy daw vitesse bi nangam la te galaw laa nga toll barab sàngam kon lee mu agsi fa ahyaynaa bihi al-arda ba'da mawtihaa kazaalika naka noonu yàlla mu ne an mooy dekk gi al imaam Ahmad nekk na ñu jële ci abi Rusayn al-Aqili ne dafa am benn bis mu ne yow yonent bi kayfa yuxyi allahu almawta wa ma ayatu zalika fi xalqihi naka la yàlla y dekkale ñuy faatu ak lan mooy màndargam loolu ci mbindeef yi ne ko ndax mas ngaa romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am verte gàncax gi sax mu ne ko waaw rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale almawta noonu mooy aayatuhu fi xalqihi axrajahu imam ahmad wa abu daawud wa ibnu maaja ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàllay tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee bekkoor amul benn gàncax gu sax ci kaw wow comme su yàlla yebalee niir yi mu yenu ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne naka noonu la yàllay dekkalee al ajsaadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jëkkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk moo tax taw bi yàllay dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàlla bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabru yoo ñu dekki ñañu roboon feneen ñañu roboon feneen ñañu roboon feneen ñëpp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca asxaabul kahfi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loole bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñëpp ñooy dekkiwaat kon dal man kaan yuridul izzata képp ku bëgg teraanga fa lillahi l izzatu yàlla moo yor teraanga jamian teraanga jëpp waaw man kaana yatlubu al-izzata al-kaamila wa saadata ash-shaamila falyatlubha min allahi taala waxda fa inna al-izzata kullaha lillahi azza wa jal ba tey baadul aarifina am na ci ku ne man araada izza daarayni falyuti al-aziz ku bëgg teraangay ñaari kër yi na topp borom teraanga borom teraanga gi muy yàlla tafsir Qurtubi lañ ko jëlee jëkk jukki fukk ak ñeent xatum fanweer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent suratu fatir aaya fukk man kaana képp ku nekk yurudu li izzati di bëgg teraanga na xam ne fa lillahi li izzatu yàlla moo moom teraanga jamian teraanga jëpp lépp luy teraanga ci loxo suñu borom la tege mooy séddale teraanga yi moo tax ku ko xam du jar ngay jaay sa ndor mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom moo ko def mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndaxte limba moo defoon nangam teraa ngay adduna jarul jéem a sàkku ci nit ba far ngay jaay sa ngor mu loola hadis ba noon yabiu diinahu min addunia bi aradin qalil teraa ngay amu ci lenn lu jar jaay diine ci lenn lu jar jaay ngor dama ne amu ci lenn lu jar jaay dignité tabarkalla man kaana yuridu l izzata daan la mel ne le nekk fii bu subaa nga nekk fële xam lii bu subaa nga xam la le wax lii te loolu lépp suñu borom nee na fa lillahi al-izzatu jamia ilayhi ci yàlla yasaadu la yéeg alkalimu tayibu baat bu teey képp ko wax alkalimu tayibu baat bu teey ilayhi yasaadu ci yàlla la yéeg bépp baat bu teey ku zikr baat ba yéeg wuti suñu borom ku duaa ñaan baat bu yéeg wuti suñu borom ku def tilaawatu quraan jàngal quraan baat ba yéeg wuti suñu borom ku def tasbiix subhanallah baat ba yéeg ilayhi wuti suñu borom ku màggal suñu borom ak yu demee ni ak yeneen dox ci mbokk wax lu ko defar baat ba yéeg wuti suñu borom dox ci xam-xam jéem ko yaatal baat bu yéeg wuti suñu borom ila llaahi yasadu zikru l abdi iyaahu wa sanaauhu alayhi ilayhi ci yàlla yasadu lay yéeg alkalimu tayibu baat bu tey waaye lu koy yéegal wala amalu saalixu jëf ju baax yarfauhu moo koy yéegal wala amalu saalix yataqabbaluhu taala wa yusiibu saahibahu alayhi qataada mu ne laa yaqbalu llahu qawlan illa bi amal wa man man qaala wa axsana al amal qabbala allahu minhu amalahu aw taqabbala allahu minhu amalahu yàlla kon ci moom la baat bu teey di yéege jëf ju baax nag moo ko yéegal boo ñëwoon ci Sud FM seen rajo bëgg a yéeg te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee da nga ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo agsi ci ñun kon amulu saalih foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax du yéeg lu dul jëf ju baax <laughs> moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg du romb asamaan su jege sii lu tax al amalu saalix da koy yéegal nga xam ne yarfauhu jooja la dul def benn misaal nit koo xam ne kii dangay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf ala amalu saalih ba koor ni yéegal booba nga defut nit koo xam ne kii dangay wor mbaa ngay lekk ak ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kaddu ya lay wax muy kaddu yu baax du yéeg lu tax al amalu saalih ba koy yéegal moom nga yor foo nekk fu ne boo yéeg dafay am loo fay teg benn échelle bu gudd ngay teg nga jël yéegukaay yi ñuy yéegee waaye su jëm bopp rek ne copp pep tege ci kaw loolu kenn moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñoom seen yooyu su fekkee ne àndut ak jëf ju baax yàlla nee na du yëg ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib waaye wal amalu saalihu yarfa'uhu jigéen joo xam ne daan ci biir kër jëkkëram di sëy dàq fee julli dàq fee woor dàq fee natt asaka dàq fee sarax waaye nag bët bu set mu wax jëkkëram lu ko jàmm génn kër gi walla mu on ko mu def ko yekk si duñ noona yooyu muy jëf la yàlla dul toppatoo du jëf ji duñ yéeg ndax du am laaf yu ko yéegee ci kaw ndax laaf ya ko doon yéegee mooy al amalu saalih ginnaaw moom nag du def al jëf ji du yéeg ilayhi yas'adu alkalimu altayib wala amalu saalihu yarfa'uhu moo tax nga gis benn waay buñ joxub dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñu ko dara melut nenn mu naan dañu ne moon ku jàng nangam nga gis benn waay buñ ko jox mu tàmbali ko tey dawal ko benn yoon ñaari yoon affaire ba sotti lu tax ndax al amalu saalih yarfa'uhu jakaw yëkkati jooja lay def kon nag tabarkàlla zikar yi baax na wérde yi baax na julli yi baax na woor yi baax na waaye al amalu saalix moo koy yëkkati al amalu saalix yarfauhu moo koy yëkkati kon ku bëgg say jëf di yëkkati ko la bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf ah, seeni alkalimu tayib ah da ngay jëf-jëf ji baax koo mën a doon nag boobu jëf-jëf ji baax al amalu saalix bu amut alkalimu tayibu laa yasaadu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala wala diina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yamkuruuna sayyi'aati ñu ngay lal pexey def lu bon ñu ngay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mbokk bi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sëy ñooñu lahum am nañu adaabun shadiid mbugal mu métti wa makru ulaika huwa yabuur wa makaru ulaika pexem ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabuur mooy alake ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake haalikun wa baatil li annahu maa asarra ahadun suu'an wa dabbarahu illa abdaahu llahu wa asaro wala yaxiiqu almakru sayi'u illa bi ahli mufassiroon yi ne nañ wal ishaaratu huna ila makri quraysh bi rasulillahi xiina ijtamaau fi daari nadwa wa araadu an yaqtuluhu nee nañu aay ji mi ngi joxoñ fexe ma xoroy si laloon fexee leen ko rasulullahi daje woon ñoom ñëpp ca daaru nadwa façon ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko alxuraan waxoon nañu ne wa is yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka tabarkàlla fas mufassiruna ñi ngi ko wax ba demee ci tafsir al kashaaf euh, jukki ñetteel ba xatum ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn foofu la wax ju jóge dañoo daje benn bés ci daarum nadwa def réunion bu am solo ci ñoom fas yéene def ñett ci yonent bi benn bi mooy téye ko ci diine ci ci ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan buñ ko amul ñu rey ko buñ ko amul ñu génne ko wa islam kuri bi ka loolu lay tekki suuratu Faatiri aaya fukkeel suñu borom nag mu jóge ci loolu mu ñuy tuddale ci dalaa'ilu tawxiidi wal baxth yi tegtale ne moom yàlla kenn la ak yi tegtale ne dekki am na ndax wax naa la ne alxuraan doo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alxuraan weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alxuraan moom du wax yàlla am na nit ki saa bu am nga rek léegi léegi wax nag ni mooy kenn moo ci des soo fi jiiñoon benn waaye ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jëlu ko ba mu yàgg mu ne la nu naa laa avance juróom fukk kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi li muy tekki kon moo jël téeméer bi kon toog ak moom ba mu nangu ne moo jël téeméer bi balay avance kon su boobaa moo ko jël kon yàlla moom xam na ne am na moo tax alxuraan it wax mukk naan yàlla am naag Eh, lii mooy tegtal am na day wax ne yàlla kenn la lii mooy tegtal ne yàlla kenn la wallaahu yàlla xalaqakum mooy ki bind min turaabin ngeen jóge ci suuf yàlla moo leen bind min turaabin ngeen jóge ci suuf ndax lu waaye di lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam deret deret jooje mooy jur ci yaramam maniyu maniyu moomee kon man nii maa ngi jóge ci deret deret ji jóge ci lekk lekk gi jóge ci suuf su ma ginnaaw ga min nutfatin mu dund leen ci nutfa nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen léegi nag nutfa la tudd waaw xalaqa aslakum wa huwa adam min turaab summa xalaqa zurriyatahu min maa in mahin wa huwa almaniyu allati yusabbu fi ruxum summa jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet góor ak jigéen góor denc jigéen ca këram amaat ca yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge waaw mu def ñëw azwaajan ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd góor di denc jigéen jigéen nangu ñu denc ko ay doom di am ndax doomu aadama bi nekk ci kaw suuf wa maa taxmilu du ëmb min unsa ci jigéen amul jënn jigéen ji ëmb wala tadau doosi nit illaa lu dul bi ilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere bi nit fanaanee ci biir biir yaayam tabarkàlla bis booba la yàlla xam ne diw mii ëmb na wa maa yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanu gudd wala yanqusu min umrihi kenn duñu wàññi fanam ci ñuy sen seen fan illa fi kitaabin lu dul loola mi ngi ci ab téere inna zalika loolu nag lu yomb la ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak si nañ fi nga xam ne fi war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu fatir sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci microphone bi seen mbokk Alioune Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk ci Sud FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim tabarkàlla ñu ngi woon ci sooratu Faatiri taxawoon ci aaya fukkeel ak benn. wallahu xalaqakum min turaab tumma min nutfa tumma jaalakum azwaja foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaawiqiya wallahu te na ngeen xam ne yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen ko xam ne kii xalaxana suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy ki nga xam ne xalaxakum min turaab ci suuf waxoon démb ni min turaab ci suuf ñu dañuy wax rek léeg-léeg ci suuf ñu ci des ci nangam waaye def ne xalaxakum daal min turaab tabaarkàlla suñu góor ga Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Si radiallahu anhu daana wax ne bari na koo siin muy waaxu te cosaanam karoot la warkal la loolu waxin la waam solo moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci deret te deret mi ngi jóge ci ak lekk te ak lekk mi ngi jóge ci suuf wallahu xalaqakum min turab suma ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jóge ko ci nutfa moo di su duggee ci ruuxu mu jigéen moom almani te sifaag albuwayda almuqassaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin amshaajin nabtali mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaaja ngeen di aw xeet ndox mi nga xam ne ci lañuy bind al unsa wa zakar maanaam li ci bind góor ak jigéen walla jigéen ak góor ndox moomu menn ndox la ndox moomu menn ndox la ndox mi jóge jigéen menn ndox la waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam bu siin ak saat dajee mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaaraka taala moo koy def wa maa taxmilu du nag min unsaa ci jigéen ju mën doon jigéen ju mën a doon aw fel aw mat aw yoo gëléem xar nag bëy nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illaa bi ilmi wala tadaau kenn du wasin illaa bi ilmi moo tax bàyyi may bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb bu wësin te duñu dem maternité wa ma taxmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi jigéen ñi nii ci kër gi ëmb nekk noo fi aku muus muus mi ëmb yow benn doom nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi yi dem ak a ñëw jënd sa carnet barkalla di wisitu di joxe xaalis ba bis bi ngay am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari yaa ngi wacc ci guddi yaa ngi wacc ci bëccëg am na yow mënut a lekk am na loo mënut a def léeg-léeg sa gi la yooyu yëpp nekk ci moom muus mi nag mu ëmb ñi ñeenti li nga ëmb du wàccu du dem maternité amul carnet amul ñu koy seet si noo fanaane ak noo yendoo ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla lool nag barkalla suñu góor ga soxla aji abdul ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeeg leer daana wax ne soo gisee kéwél yi ci àll bi bool leen a xar euh, bëy yi ci kër gi da nga gis ne kéwél yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla moo tax suñu mag ñooñu tubaarkalla seen jàngale dafa barkeel te sakkan lool ndax fi ñu daan jële radiallahu anhum jamia kon wama taxmilu du ëmb men unfaa ci jigéen ju mën a doon wala tadaau du wasi nit bi lu dul ci xamu yàlla ku jël lu weer